Cheikh Maye Niass nga ñëwaat ñu tout ci li nga xamné moy ay élection boobu lay waaw soxna Lému maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant sama confrères comme ni nga waxé sank rek di wax ne maa ngi ci Seydina parce que analyse yi muy def c'est très pertinente donc di ko euh, wax na ci politique bi avec la conférence politique de président Ousmane Sonko. mais amul waa Kaolack de wa wa Mérina avec la conférence politique de président Ousmane Sonko également wax na ci walu Malawi ñu ngi leen di jalé mhm. sen vice président je pense nga wax. ak sen 9 neuf personnes huit personnes qui xamanteni ni ñoo ci mhm. génn ak vice président bi. Mhm. wax na également ci cadre Israël ak Palestine mais je pense que problème Israël Palestine moom plus important parce que sama papa da wax su fekkee ñaar du du xeex c'est mm-hmm. atteint tel teel ki loxo mm-hmm. donc je pense que suñu teewoon loxo États-Unis mu nekk ci ginnaaw Israël problème bi jeex en ce qui concerne également ci wàllu politique du conférence bi wax na ci lu am solo parce que peut-être Ousmane Sonko il a parlé pour les journalistes wax a également ci dossier yi nga xamante ni mais man je pense que le dossier ce c'est pas un dossier qui est judiciaire peut-être politique moo jiitu judiciaire donc euh, passé nañ actualité boobu noonu mais bon c'est pas grave léegi li ma bëggoon wax ci lu euh, maa ngi sant étudiants yi nga xamante ne ñoo surtout la coalition acte bi nga xamante moom laa jiital parce qu'il y avait cinq coalitions il y avait au début 13 candidats mais il y avait des intercoalitions dedans donc bañ demee nekk 5 coalitions man ma jiite woon la coalition acte di wax ne ñëw nañ étudiants yi parce que ren dafa amoon loo xamante ne défi boo xam ne dañ ko bëggoon relever mooy mm, comité électoral lañ ne woon élection présidentielle dafay am xeex jaase day génn wala courdin génn wala paaka génn. ci biir élection ci biir élection direct day tuuru. bañ defee ay démarches dem nañ biir camp Jérémy en face université Anta Diop Dakar dañoo bañ dem nañ école Mangui 1 Mangui 2 dañoo bañ dem nañ si yeneen institut si yeneen école yoo xam ne gars dañoo bañ mais bañ demee biir école police nag police dañ très kaay leen donc mu nekkoon acquis boo xamante ne dañ ko defoon mu rafet trop ñu def élection yoo entre entre étudiant Kaolack quoi mais ba policiers yéegee loolu rek dañoo ñëw génne képp koo xam ne voté nga pare donc képp koo xam ne voté wul. lu y dafa am paramètre yoo xam ne da bokk. donc euh, paramètre mooy. leeragul de. waaw moom dina leer nag <laughs> paramètre mooy comme y avait cinq cinq candidats. que hmm. y avait y avait cinq cinq coalitions donc ci kaw loolu. la matinée amoon na benn coalition boo xamante ni moom dafa teeloon ko ci élément yi pour élément yi ñu voté la matinée. donc beneen coalition bam xamé xamee ne ki su voté du ko su voté mom du ko arrangé parce que moom élément la ñëwee il fallait que ñu indi ay bataille pour que étudiants mëna mën a xeex. pour retarder pour retarder vote bi. pour que pour que pour que étudiants yi mën donc ba ñu touti après. ci le police école police biir biir école police maa amutoon blessé kenn gaañuwul dañu xaw a jàppante rek président comité électoral maa gisee le passage monsieur Sayer Sarr et Racine Ba. ñu lañ oo policiers yi ba ñu ñëwee ñu génnee ñu ñu ñu ñu ñu ñun ñëpp parce que dafa awoon ñoo xamné ci nekkoon bëgg voté voté waat bëgg voter. voté votoire yàgg na ci élection. yàgg na ci élection donc problème yi amoon na ci wa mais ñu ngi sant yalla parce que euh, vers 14 h policiers ñoo nañ génnee ñëpp ba dess ñi nga xamante voté gu ñoo nek ci biir école bi ak ce qu'on appelle les mandataires ak ce qu'on appelle les candidats rek ñoo fa desoon ba bu ñu def depuis maam on l'a fait devant les policiers ñoo ñoo taxaw euh, yeneen candidat également ñoom reconnaître nañ que ni man ma gagné parce que après ñoom seen euh, poste ñoom ñëpp publié nañ que ni reconnaître nañ victoire et japp nañu élection yi jaar na jaar na yon na yoon bu baax a baax a baax a baax. Mhm, bu baax a baax ñu bàyyi la ki nga xam mooy Cheikh Maye Niass. waaw Cheikh Maye euh, sama sëriñ encore une fois di la féliciter encore une fois parce que pour cette belle réalisation c'est pas facile aussi nga dem élection aussi euh, gagner surtout avec cinq coalitions ñëpp ñoo xam ne ñoo bokkoon aussi yéen ñoo bokk ñu ñëpp. foo leen jógee ñu ñëpp benn benn communauté bi la ku ce qui dire que entre frères la suñu biir mu nekkoon kon moo war a mën a diriger rek loolu la hmm. kan moo wara a yote euh, yore flambeau bi wala volant bi pour diriger vague aussi ñëpp top si ginnaaw. Ah. ba ngay dem da nga am ay objectif da nga am ay défis nga xool contexte actuel bi nga xool fu ñu toll euh, les étudiants surtout problème de codification actuellement su ma nee université si leen nekkoon yi bëri na ay coow surtout dañuy dem point par point man point bu ma gën a soxla actuellement étudiants yi défis. yan défis nga nga mën a sur la table ou les wala ay perspectives que xam ne bëgg nga carrément pour réaliser waaw bon naa ci rebondir mais dafa am lu mu bëgg wax lu am solo mooy étudiants yi dafa am benn part boo xam dañ ko dese dañ ko dese war a wax mooy parce que ren dañuy def élection biir école police dañ ne foofu dafa sori ak campus étudiants yi duñ ñëw voter par rapport ak poids électoral bi mais gis nañ ne poids électoral ren bi ëpp na bu daaw minimum 200 ba 300 voix parce que à le euh, maximum. Euh, euh, am na ay mille ay mille cent la daan toll wala trois cent quarante sept je pense. augmentation avec le nouveau bachelier ñoom ñoo massivement même si a une descente parce que pour foog nga def transport te année passée yëpp daaw def transport ngay génn en face rek nga voté donc étudiants peut-être gis nañ changement boobu noonu. Mhm. également di wax na que ni parmi les candidats man je pense man rek maa nekkoon étudiant maa nekkoon en licence 3 yeneen ñëpp ay master lañ nekkoon peut-être bëggoon nañ changement moo tax ñu indi ma wala gis nañ suñu programme suñu programme également ci laay ñëw en général IREC ku ko jiite. dénommé Sadébilis, dénommé aspect Alliance pour la solidarité et la fraternité étudiante, dont je gère, la, je gère là-bas la, la communication depuis presque un an ou deux ans. Mhm. Donc nous avons fait ce qu'on appelle congrès, nous avons un candidat. Le, maintenant, nous avons la caution, je n'ai même pas donné 10% de la caution. Nous avons réglé 2000, 2000, 2000, 1000 francs, 1000 francs, 500, 500, bon max 100 000 francs, nous avons fait un candidat. a Parce que tout à l'heure, la perspective et défis, défi, moi, que parce que niveau avec licence, nous avons une master pourquoi que nga sur la table ba qu'on am confiance jiital la. Oui, bon li ci que je pense que jiit dafa am un parcours un discours une constance et cohérence mais moi, je dirais deux choses nit da ce qu'on appelle un parcours qui est constant. et un discours qui est cohérent. Dans c'est-à-dire euh, suñu vocation de campagne l'homme au parcours constant et au discours cohérent Il rek a ne année passée ki koy en général le président le fait que le président pas pour les étudiants mais pour sa propre personne tous les présidents je ne dis pas tous les présidents mais donc le fait que nga président et ci campus président, le président président donc nañ sommes ñëw président cette année ci Inch'Allah, si vous pas et d'autres poste président on a décidé de supprimer le poste de président de l'UREC. mais on a proposé quoi à la place poste de coordinateur régional coordinateur régional parce que nous, à chaque année l'UREC fait un poste de président mais dans chaque département comme nous avons ce qu'on appelle un coordinateur départemental Nous, nous ne supprimer le poste de président supprimer le poste des coordinateurs euh, départementaux mais on va amener ce qu'on appelle des coordinateurs facultaires parce que moi, peut-être je suis au département de biologie à la faculté des sciences et techniques mm-hmm. il y a un étudiant qui est à la faculté des lettres mais pour mu am en contact direct avec amical bi dañ koy boole ak un grand frère ou une grande sœur boo xamante ce qu'on appelle la faculté des lettres. est-ce que Foufou aussi qu'on mu am problème ce qui veut dire que ne Guinguinéo néew léegi ngeen def par département. Mhm. ce qui veut dire que ne man à mon avis je pense que ne ku nekk Guinguinéo je gën a mën soulever. Mhm. problème euh, Guinguinéo parce que bu jugee la faculté à la fac day dem Guinguinéo. Mhm. su boobaa dina mën a xam au cœur ce qui se passe même les nouveaux bacheliers et les nouvelles bachelières. dina ko mën a rapporter au sein de l'université. mais paradoxalement bu fekkee faculté bi rek nga am mu nekk koo xam bien vrai que des Kaolack la dëkk mais vacances ak vacances day dem Kaolack. wala rarement voilà événement événement est-ce que dana relayer véritablement. la cause ou les causes la cause étudiante ouais je pense que la question que je me même sama directeur de campagne c'est le passage Abdou Kader le président sortant de l'ENEA et de de donc si si si si si je pense la même chose comme il y a boy ma c'est très important mais on va le faire nous pourquoi Monaco ne ko c'est-à-dire ça coiffe ce qu'on appelle les 41 communes dans chaque commune il y a ce qu'on appelle un président amical commun mm-hmm. communal mm-hmm. donc travail bi nga xam jàngi koy wax comme par rapport ki jógee gën ginnaaw wala que par rapport ki ce qu'on appelle la commune de Mbadakhoune wala la commune de Medina Sabakh da Ngayène Sabakh donc ñun on va travailler en parfaite synergie avec ce qu'on appelle leur président ami ami amical donc côté on noonu xalaat nañ ci bu baax a mais UREC en général problème yi muy gën di jàkkonte un ci espace universel bi donc nous gis étudiants, mën nga nekk lambda président peut-être ba muy ñëw di la battre euh, campagne ci ngay soo gis donc ba maanaam jaxat du ko gis donc ñu ne ren dañuy changer ce qu'on appelle ñu ñu ñu ñu gouverner. en cas de force ngeen changer euh, nan ngeen ni nan ngeen ni euh, fas yéene def. gis ñoo xam ne bu ñuy campagne lu nekk discours bi ñuy tenir ak bu ñu nekkee le président day day am différence par rapport à ça yow bokkoo ci ñooñu jéem a. berne les gars pour nekk di. non non je bi ñun ñun ñëpp ñëpp ñëpp campagne. parce que je suis la train wax ma candidature à 18 minutes la plateforme bi candidature donc le plan de ne campagne bi dañ une ko une campagne de ñun et d'autres présidents. président mais coordonnateur régional régionales, mais également ce qu'on appelle les coordonnations facultatives. Les coordonnateurs coordonnateur régional bi. Hmm. en cas de force en cas de force majeure situation il va falloir en décider. Hmm. décider qui va décider à ça c'est le coordinateur régional qui va décider. Le coordinateur régional moi, remplace le place président. non Le coordinateur régional il remplace le président. c'est-à-dire on, président on va supprimer le nom du président. et d'autres membres du président mais on, va initier ce qu'on appelle le poste de coordinateur régional. pourquoi le parce que y a amul subvention amul chalice..! amul ce qu'on appelle des fonds yo c'est régulier chaque année. mais mais la mairie aussi la mairie parce que. Ah. auparavant xaw ma mais la mairie de allouer alloué subvention xam nga à nous avons je pense 41 communes. oui commune bu nek say étudiants ngay bëgg di jàppale donc donc le président a ay démarches de cette autorité. même s'ils ne sont pas des maires mais ñu bokk nañ gouvernement ils sont des DG des ministres ou des députés donc pour nous ñu am benn contribution lañ ko amicale mais mairie bu il y a 5 4 3 2 millions de xamante ni yaa chaque année ce président amical bu commune Ce président amical commune Ce président amical bu communal donc loolu moo nekkoon problème bi ñu ne woon indi ce qu'on appelle dans chaque faculté ki nekk ci faculté bi comme muy nekk ce qu'on appelle coordinateur ou coordinatrice facultaire donc étudiant bi nekk fac droit euh, fac droit donc su amee problème automatiquement man mi nekk fac science. mais loolu tamit est-ce que du indi problème parce que boo xoolee euh, département bu nekk nga def fa benn coordinateur est-ce que gënutoon li nga xam ne euh, département bu ne ngeen jël benn coordinateur boo xam ne dina permettre muy relayer problème yi nga xam ne étudiants yi nekk ci yooyu les département ñoo ngi koy dund ñu indi ko ci li nga xam mooy UREC. waaw bon loolu prévoir nañ ko moom la Seydina je pense wax sànq acteur mooy coordonnateur départementaux yi xool nañ ko xool ko chaque année moy am mais day des pratiquement ki dëkk ki nekk département bu ñor mom bir commune bu ñor rek lay gérer du gérer yeneen étudiants nga xam ne dañoo ci si commune nga xam ñu ñoo nekk bi département bu bu Nioro donc motax dal ren dañu indi ay réformes yo xam ne dañ ko bëgg a teg lan lay joxe ta réformes yi xool nañ ko xoolaat ko gëm ne incha on peut le faire parce que on a prévu de faire ce qu'on appelle à travers don ticket parce que gouvernement yi si am

cette fois-ci même s'il y a ce qu'on appelle le président de la commission sociale mais le président de la commission sociale va travailler avec ce qu'on appelle la codes les facultaires donc faut suñu def ça. ticket ça campagne on a mis en place ce qu'on appelle une plateforme pour travailler parce que est actuellement un immeuble. le ministre des finances de 30 ministre des finances bon ah, parce que parce que le président sortant pour qu'il le dellu le président en exercice parallèlement le président en exercice de l'amicale de Nyoro. donc j'ai entendu deux versions il y a des gens qui disent que l'immobilier c'était pour toute la région de Kaolak. il y a d'autres qui disent que c'était uniquement pour la commune de mm-hmm. mais il y a des gens qui disent que j'ai des sources fiables qui me disent que l'immobilier c'était pour toute la région de Kaolak. mais il y a quelqu'un qui m'a dit que les papiers on n'a pas mis la région de Kaolak, mais on a mis ce qu'on appelle la commune de mm. la commune de Nioro prévoir pour euh, trouver solution donc l'immobilier il bi moi mois de juillet il a fait. contrat contrat 8 appartements mon immobilier ñi fa nekkoon ñëpp dañuy génn. après amuñ fi ñu logé pour le moment kon am nga am nga am nga liggéey. boo war def na am liggéey ci ci liggéey boobu noonu donc ñun ñu ne suñu ñëwee dans notre campagne on a privilégié on on on avait dit aux étudiants quoi que de mettre en place ce qu'on appelle une plateforme. je pense également un certain Jean, c'est un c'est un ami informaticien mu ci liggéey te yaakaar naa ne waxoon naa leen que jour bi nga def passation de service bi plateforme dina disponible plateforme mooy lan que de su amee benn immeuble loolu parce que le DG du coûte actuellement il est il est de Kaolack. donc on pourra travailler avec lui donc ñun dañ ne suñu amee immeuble loolu des chambres au sein du campus nekul ay logement gré à gré mom yama mais à travers une plateforme que lañ koy lancé étudiant bo xam ce qu'on appelle les problèmes sociaux il ngay inscrire ci plateforme il faut inscrire. digitaliser ci digitaliser. donc par exemple on a dit que l'immeuble doit prendre 200 places étudiant bi inscrire une position 70 donc forcément il faut que dem dugg ci immeuble bi parce que numéro am ko numéro mais est-ce que le une 205e position immeuble 200 places la jël amul droit de l'immobilier? ci donc mu nek des points de transparence yo xamanteni mais est-ce que vous da ngeen ko bon li gëm man. wax naa ko ci campagne te dinaa ko def. journée de de passation journée de passation de service. Mhm. plateforme bi dina disponible te incha allah lépp loo xamante du ci am du ci am loolu mhm. dañoo xaw a ci kii bi même caravane bi sax dañoo bëgg lancer benn plateforme boo xamante ni foofu la jaar pour moom day xool ñu bokk koñ kaw la ñu ne mhm. dëkk bi ci caravane bi. déjà déjà benn 10 ba 15 places boo xamante ne balaa ñeneen ñëw ku ñu mën a la caravane bi fees na donc réserver ko ay xaritam pour mu ànd ñoom dem ñibbi Kaolack donc ñun ñu ne dañu lancé beneen plateforme boo xamante ni caravane su amee parce que pour le moment on a ce qu'on un bus pour caravane moment moom day nëbbu turam. c'est du bénévolat non bénévolat mais également. Mm-hmm. mais comme il n'a pas encore. C'est la C'est dans la la... C'est dans la département dans le département de parce que pour pouvoir. pour que ñu ut bis pour que mu may ñu caravane pour ñu ñibbi mais ñu ko ñu ñu joxoon liggéey bi maanaam ñu bokk même équipe boo xam même liste boo xamante ni foofu lañ liggéey ñun ne fekkee loolu nga am benn bus boo xam ne soixante-dix places jël. nga ne nga koy teg. huit trois cents étudiants. mille trois cents te ëpp te ëpp loolu. non votant aussi non votant moo ëpp loolu. donc donc ñu ne benn bus la ñu teg ko biir biir espace universitaire bi ñu ne bus bi kat Kaolack la jëm ban département lay dugg day dugg département ba Kaolack waa Nioro mer waa Guine Guineo mer ma ne suñu amul trois bus benn dem direction Guine Guineo direction Nioro ak direction Kaolack caravane bi mën na ko def ci beneen tour mais du nekk ci tour waaw waaw waaw ñu ngi lancé appel aux autorités parce que ren nag dina xaw a parce que peut-être gars dañuy mais nous prévoir dal inshallah allah gëm nañu dina am euh, caravane tay lepp lo xam ne mën nañ ko ci ci ay effort ñu ko ci ñu ñu ko ci def. Cheikh Mahi ñu ñëwaat. également pare gu ma bëgg naa ñëw ci réforme yi. Mm-hmm. on avait dañuy gis né en général so nekkee président yow yow mi nga xamante ne nekk président yow ak say xarikas yéenay bokku nekk. Mm-hmm. donc peut-être da ngay fàtte étudiant lambda nga xam mo moo nekk si ay problème parce que des fois nga ci étudiant lo xamante ne il est il est non boursier.

Euh, da ngay wax si réforme yi ma gis dis aussi parfois est-ce que y aussi un changement de stratégie c'est-à-dire que à chaque fois a une autorité pour logement il y a ay réforme. Mm-hmm. pourquoi pas trouver une alternative soit par cotisation soit par d'autres moyens Et de étudiants participer ci seen caisse ci moyen loo xam somme parfois mën na résoudre d'autres problèmes en attendant même que autorités intervenir C'est ce que laaju sûrement que sûrement que da nga lire mon programme parce que j'ai initié ça dans mon programme je dis que mënuñ à chaque année mënuñ à chaque année dem ci autorité pour di leen ñaan pour ñoo di mën gérer étudiants yi on a prévu cette année c'est de faire ce qu'on appelle les cartes membres yo xam ne étudiants yi ñoom ko jënd seen biir mais également amna benen politique bo xamante ne ren indi nañ ko mo nek beneen politique moy à Kaolack quand on dit Kaolack moy à Kaolack quand on dit Kaolack on fait on fait ce qu'on appelle à Kaolack il y a 41 41 communes. Mm-hmm, à Kaolack il y a il y a ce qu'on appelle 41 communes ñu ne ñun on va essayer de faire ce qu'on appelle une politique boo xamante blog oui c'est bon très bien. léegi il y a ce qu'on appelle 41 communes dans notre programme on a on a juste initié que si 30 maires 30 on va essayer de faire des démarches au niveau de sur les 41. de prévoir ce qu'on appelle 30 maires chaque maire donne 50 000 francs par mois je pense que c'est pas trop. Hmm. donc l'année ça fera 600 000 par maire. Sur les 30 mètres, ça tourne autour de 18 600, 000. À côté de nous, à, à il y a ce qu'on appelle l'amicale de Richard. Je dis bien la commune de Richard mhm. euh, a mis à la disposition de ses étudiants ce qu'on appelle un immeuble à une hauteur de 900 000 le mois. Donc, immeuble de 215 personnes. 215, je dis bien 215 personnes. Ce les 900 000 par mois, 12 mois ce environ 10 millions 800 mhm. 000. Mhm. alors que si les 30 mètres 50 000 par mois 600 000 vous avez récolté ce qu'on appelle 18 millions 600 000. pourquoi donc pour la les étudiants euh, euh, les étudiants pourquoi pas ñu am minimum 30 maires yo euh, contrat chaque année du parce que ñun politique étudiants soxluñu autorité di nga jox xaliss direct mais nañ participer ñoom seen compte bi nga xamante ci lañu fayé fayee bailleur bi. Mhm. donc ñun loolu loolu moñu ñu soxal ci ci ci ci réforme yi donc paré wuñ pour dem ci uti nag may 1 million may 2 millions mais des contrats yoo xam ne bëgg man su ma jógee ba nekk mu président sax beneen président bi ñëw sax. pour mu nekk une continuité. mu nekk une continuité day day fekk loo xamante base la boo xam bu solide la da ko fi fekk mu continuer di travail ci loolu donc soo xoolee 10 millions 800 mille ngay fay l'année alors que yow vous avez récolté 18 millions 600 mille donc où sont les 7 millions et poussières donc cette mine et poussière mën a étudiant à travers des numéros verts yoo xamante ni ko prêt pour. Euh, dañuy ñëw ci BT moytu les ñu jox 18 millions yi sa au mandat nga tukk ci wala nga jënd ci oto wala nga ci jabar. ci euh, parce que mon wax na ko ci début euh, début prise de parole mais mm-hmm. j'ai pas trop compris d'ailleurs de ça. waxoon naa ko waxoon la il faut mu leer mais mm-hmm. parce que moi, je viens de comprendre pourquoi il y a autant de tension. si mm-hmm. nomination en tout cas du président président de l'association est-ce que nomination boobu non? soit il y a des intérêts qui se cachent derrière derrière il y a des gens qui se cassent derrière. wala c'est juste une volonté pour euh, en tout cas euh, assurer les intérêts euh, des des locaux et des c'est très important il y a des intérêts il y a des enjeux il y a également une volonté. il y a des intérêts parce que bu dee yow ab liste moo la yóbbu. intérêt personnel. non

donc est ce que vous réellement le problème des étudiants je suis boursier beaucoup d'étudiants étudiant je suis étudiant Le xamante ni li c'est ben match bi yóbbu naa ko rattrapage valider normalement. de codifier pédagogiquement. Hmm. ba pare damay gis sama codification pédagogique que jox les étudiants kaw la pour que ñu ngi dëkk fii. parce que am naa. am naa am naa ay relations yoo xamante mën naa jouer au sein du campus. Hmm. ba fu ma tëdd man du du ma du ma du ma du ma jaaxal donc damay jël codification dem joxe ko donc ci kaw loolu ñu ne ma yaa nekk candidat tu dois déposer de l'argent pour notre caution ma je suis boursier étudiant normal 40 000 francs par mois du ma jël sama xaalis di ko def ci élection yi bu dee gëm ngeen projet bi gëm ngeen mën ngeen il faut que ngeen cotiser ñun suñu biir

mais projet est peut-être motax montagne ñu motax ñu voté ko. donc il faut euh, confiance au projet. il faut confiance au projet il faut confiance aux hommes de euh, aux hommes euh, auxquels nous travaillons. parce que maa ngi ko ba amical bu Ndiédiène wa la commune de Ndiédiène fa laa dem bu campagne de tëj na vers 0h. ils m'ont demandé que lu tax ñu fi bu parce que dañu dem ba moment on a dispersé le bloc. ñu ne yéen ñi jaar leen ñeent seeti amical yi man la président ma jaar nii dem dem. dem dem dem Sonko ak Diomaye. non Sonko Diomaye sax. balaa ñëwaat si yow mm-hmm. euh, ñuy ñëw si yow Seydina dañuy euh, ñëw tuuti par rapport ak gis nañ euh, président yi maanaam buñ leen falee ngeen doon président amical jiite yenn étudiants yi par rapport gis nañ don de ticket ngeen yi faral di def ak mm-hmm. aider leen. tuuti sax si mën naa ne tuuti ci logement est-ce que am na yeneen yoo xam prévoir ngeen ko pour defal ko les étudiants yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo foofu la nga xam mooy ca Kaolack. waaw xam nga ce qui est important mooy mooy le projet lan lañ jaay étudiant Kaolack waaye mooy notre programme. moo nekk lan ñun suñu suñu bët yemul ci amicale bi parce que on aspire être des dirigeants dans nos localités respectives te lii base la ça des dire passager c'est juste passager. Mm-hmm. il faut que ñu marqué suñu empreinte pour ëllëg nit ñi mën jox confiance ci kaw loolu on a initié un projet boo xam ça s'appelle GPS. GPS ça signifie avant la GPS ma ñëw un beneen programme ba importance. GPS JP Ousmane Sonko yéen daal da ngeen da ngeen. non non attends non non. Tu expliqué ñu comprendre te que dire yow mi monde nangul te pour nous ma jàpp cette année-ci on a décidé d'inscrire 500 nouveaux bacheliers au niveau de la bibliothèque universitaire Nous avons pris ñoo ñoo ñun pour nous accompagner parce que en général nous avons pas un problème amical noonu. amicale vous ses propres moyens. non du amicale bi parce ses propres moyens. da euh, partenaires. waaw expliquer Si vous avez 500 nouveaux bacheliers man dama un problème à l'université pour des problèmes d'orientation pédagogique mhm. on avait décidé que comme on a une d'interprétation peut-être que nous avons faculté on xam commencé ñu jël nouveau bachelier Comme une ne dañoo université ko nous avons 500 personnes dans chaque faculté on a prévu de, de, de prendre 100 personnes ou 80 personnes par faculté à de ce qu'on appelle les écoles et instituts parce que mhm. coordination faculté yi mhm. on a prévu également de faire une coordination pour les écoles et, et, et instituts ci prescription euh, BU c'est à 1000 francs. ñu ne amical bi day joxe 500 francs. d'accord étudiant bi joxe 500 francs. ñu mën leen dem inscrire après ñun dañu am benn case boo xamante ni fa la ñu pour di mën a pour mën a alors ce point maay. Mhm. moyen amagul. Mhm. problème logement. matagul. Mhm. problème même même même caravane bi dem mayagul. ngeen di prévoir aussi 500 500 est-ce qu'Amical amical bi am na moyen yooyu ak ñaata nga fekk ci kees pour le, pour moment, j'en ai parlé avec ce qu'on appelle le secteur général, sortant. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'argent liquide qui est à la caisse. Mais euh, pourquoi on a initié ça Parce qu'actuellement, nous sommes au mois de juin, si je ne me trompe pas. Donc, au 31 juillet, l'Université de la se porte. Début octobre, bibliothèque universelle beneen inscription lay am. bu bu donc pendant les vacances on a prévu de faire des démarches yoo xamante ni octobre ci la ñuy inscrire nos bacheliers yi nga xam ne seen inscription dafay demaat ba octobre ba octobre. ak régler li nga xam mooy logement yi. est-ce que war mois de mm-hmm. juillet aussi. Mm-hmm. léegi na ñëw si point Mais ce qu'on appelle le am naa si yaakaar dinañ ko def octobre prochain Inch'Allah, allah lii dina dina ànd projet bi. mooy mm-hmm. ce qu'on appelle le GPS GPS ça signifie Grand Prix du salon, Grand Prix du salon. dañoo gis né en général Kaolack dafa am ce qu'on appelle benn retard boo xam dafa le président sortant sur premier concours général sous le militaire wax Mariama Ba sur wax lycée de mhm. pourtant à il y a des lycées qui dañu produire je prends l'exemple de la faculté des sciences et techniques ici mhm. la majeure partie sont des quoi donc faculté faculté des droits faculté faculté donc pourquoi pas nous ñun un projet. c'est comme à l'image de guerre d'or bu Serigne très bien Nous ne un projet dañu dem ci éco IREC c'est uniquement pour les étudiants mais une vision de am étudiants Nous dañu dem ce qu'on appelle initier élèves élèves sont dans les différentes lycées qui sont dans la région de Kaolack. avec un projet dénommé GPS. GPS moi, dans chaque lycée on a deux représentants qui raw en matière littéraire d'un koy hum. mais également qui raw en matière scientifique. dañ koy dañ koy journée journée de concours Là. après élèves yooyu noonu ñu ñu journée benn test. Nous xool le lauréat en mathématiques le lauréat en physique en anglais en asiatique donc on a choisi dix matières yoo xamante ne dañ ci chaque lauréat après nous avons leen des élèves mais dañ groupe nous avons encadré avec des professeurs et des étudiants pour que ñu préparer le préparer concours général je prends l'exemple du concours général récemment passé la personne qui était le premier du centre lycée scientifique bu très bien mm-hmm. c'est un petit frère à moi Cheikh Thioub il était un ancien élève du lycée de de de Pidouze à Kaolak. mais il ko a du collège de Pidouze à il hein. mais dañ ko jëlee collège Pidouze yóbbu ko lycée scientifique de Djurbel. donc je muy dem représenté mais il représente le lycée scientifique de Djurbel. donc on xam une école qui a une potentialité uh-huh. pourquoi pas une teel inséré. Le projet de may GPS cette année je l'ai initié à mon établissement SEM def nañ ko le mercredi passé lañ def premier tour bi dimanche bi lañ def deuxième tour ñoom commencé nañ ñom seen pro seen projet donc je pense que lu mën a nekk la également prévoir nañ pour pour semer ce qu'on appelle la pédagogie au sein au sein. alors que xool benn côté la CM Mais nañu bay yenen CM. waaw waaw non dina dina tour parce que. léegi léegi. li nga wax c'est très important avant d'être le président de j'étais le président de la commission pédagogique de l'amicale communale. Mm-hmm. j'étais il y a également au mouvement à Kaolack du ma pour des raisons de publicité je suis également le chargé de la commission PRAC parce que wàllu PRAC dafa ma xaw donc initié ma pas pour ay mouvement mais donc ko uniquement pour la commune de Kaolack mais comme actuellement les moyens ne sont pas là tu as sa weewu tànk que les ma pourquoi pas ma dem initié ko foofu noonu ñu commencé ma xool nan lay def naka lay demee l'oiseau la dernière question pour ñu mën parce que d'accord alors ñu avons une ñu euh, rek nekkee Kaolack am maire aussi Serigne sànq da nga ne secrétaire général bi daf la informé wala daf la signalé ko si kees bi dara nekk fi est-ce que yow actuellement am nga retour parce que UREC mën ne wax tamit ko maire bi dafa dina ko reconnaître est-ce que am nga retour venant du maire aussi de Kaolack ak aussi au auparavant si loo jot a xam nax mairie bi Kaolack mu ngi doon participer carrément ci ci ci ci ci ci édifice wala ci pour. pour euh, pour le bien-être de des étudiants de Kaolack. très bien euh, émission de dafa déjà donc dafa am loo beaucoup ne bëggoon naa cee ñëw mhm. avec la avec la mairie de Kaolack. je pense que l'année passée le président du conseil départemental de Kaolack monsieur Ahmed Benjelloun. il avait octroyé une subvention de 20 millions pour les étudiants de quoi, mais pas seulement ceux qui sont à Dakar. Mhm. mais dans toutes les universités du Sénégal. donc Saint-Louis dañ ci l'université part et je ne sais donc yooyu lañ ci am tam même les écoles institut amoon Matar Mbow je pense mhm. jot ñoom jotoon nañ seen wàll mais pour le moment la mairie n'a fait aucun acte aucun acte autant pour moi venant des étudiants Kaolack quoi mais ana xaalis boobu non benn jal joxe woon pour les universités parce que ñu wax déggoo sa biir wax yaa ngi naan kees bi nee nañ benn xaalis nekku xaalis c'est pas pour lui rek nekkul pour UREC mais dafa am ce qu'on appelle mais jot na ci paaxam UREC amul ci amul ci cent francs bu bu benn jalum bu benn jalum joxe ci 100 francs. pourquoi am ci 100 francs. parce que amicale départementale bu Kaolack la ko mati IREC dafa coiffer toute la région. de Kaolack donc xaalis bi ñun ñoo si jot mooy peut-être ñun ñoo si jot mooy je dis bien peut-être parce que après xaw ma fan la xaalis dugg. Mhm. peut-être ñun ñoo si jot amicale communale yi nga xamante comme le commune de Ndiédiène yi nga xamante commune de Ndiafate yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir. commune commune ak université yi nga xam ne ñoo nekk ay Ziguinchor ay yooyu noonu peut-être ñoo jot mais quant à IREC moom xaalis boobu jotu ci woon jotu ci woon dara mhm. dafa am également loo xamante ni balaa gën a ko balaa ma lu ma gën tax mu dugg ci pro mu dugg programme bi nii pour pour pour pour ñuy jiital ma dem mooy on parfois que les étudiants Kaolackois représentent 31 voire 33 pour cent des espaces universitaires Cheikh Anta Diop Dakar. donc dama gis ne à chaque fois mu am ce qu'on appelle les événements culturels euh, nos amis de Casamance. waaw mooy kénkéndoo. kénkéndoo ñoo dégg. yaa def def leen séeréer ñoo ngi dégg. te ñu ñun dañoo bëri à Kaolack te soo nee à mhm. mhm. tey tey amul benn benn benn restaurant booy dugg Dakar te tuddoo jaay mbaxalu Saloum. Mhm. même dans nos c'est-à-dire repas à l'université. war dañ soo insérer ce qu'on appelle mbaxalu Saloum boo xamante ne bokk na léegi ci menu bi ñu ne pourquoi pas ñu jël suñu culture. jaay ko jaay ko espace universitaire donc je pense que loolu moo tax ñu gën a jàpp gën a dëgër ne que ni am nañu yaakaar que ni yëpp dina ko mën a. les autres étudiants étudiants yi nga xamné aussi nekkul université dans les écoles de formation. Mhm. ñoo lan ngeen prévoir pour ñoom ak aussi. Mhm. accompagnement bi accompagnement pour ces étudiants yi nekk dans les écoles de formation. aussi mhm. même ak ñoo xamné sax mën nañu wax carte chinoise à l'université actuellement amatu lu ñuy def ñoom dañoo xaw a perdre le bien donc étudiants ñu on avait on a on avait eu trois choses yo xamné moom lañ prévoir mooy yi nga xamante ne peut-être ñu si biir université wala dans les écoles de formation mooy ce qu'on appelle les opportunités prévoir nañ ay opportunités prévoir nañu également parce que étudiant da ngay gis jang ba am licence wala master te musu def stage mhm. ñun on va faire des démarches des démarches yo xamanteni dina tax étudiant bi mën am stage également on travaille avec un certain Ali Cissé mu yore ben ce qu'on appelle ben orientation pédagogique biir pédagogie boo xamanteni ni mhm. prévoir nañ pour liggéey ak mom pour may ce qu'on appelle des bourses yo xamanteni ni dañ koy octroyer ce qu'on appelle les étudiants le quoi on a école de formation école de formation lay lay travailler mhm. donc sur ce également nga gis étudiant bu dem ba jang ba pare te mënul bind CV pour mën déposer entreprise donc ñu on a prévu de faire ce qu'on appelle des séminaires de formation yo xamanteni ni prévoir nañ pour def ko euh, pour étudiant yi mën ci am benn bénéfice. Euh, ñu ñëwaat tuuti balaa ñoo gën a attan balaa ñoo gën dafa am question boo xam ne bu am importance boo xam ne bëggoon naa ko poser Cheikh Mahi Niass parce que bu ñu xoolee li nga xam mooy xalifa des Niassènes di Cheikh Mahi Niass gis nga euh, gëdd bi mu jox li nga xam ne mooy étudiant parce que samay cousins yi ba ñu nekkoon à l'université bokkoon na ci ñoo xam ne di leen doon fayal li nga xam ne mooy est-ce que prévoir ngeen amical bi dem seeti ko waxtaanee ko par rapport Wow, je pense que un un peu parce que le bureau sortant ba je pense visite bi def ci la ko ci ci def moy Cheikh Mamadou Mamoud ici avec moi donc euh, bureau sortant moom bureau sortant visite def mais bam mu ñom jël Dakar dem ba Medina Baye la pour que pour que réaliser mm-hmm. également bon peut-être est aussi Hein non suñu suñu visite

effectivement donc soo dee foofu di nga wax su ko nappale si Mbacke Mbacke mu kabaru mooy présenté le mouridisme di wax su ko nappale waa Léona Niassène di nga wax également waa Kaneen on est d' accord mm-hmm. donc soo ne Kaolack kan sa xel ci Baye Niass lay dem mm-hmm. Mm-hmm. soo ne Kaolack sa Kaolack dina dem ci beneen beneen am mais sa xel dina dem ci carrément ci Baye Niass donc moo tax suñu suñu gouvernance prévoir pour am benn discrimination parce que ba soo xoolee suñu a donc duñ benn poste duñ jël poste joxe yemale ko Kaolack wala Nioro wala Guinguinéo mais prévoir nañ suñu dem bay def visite dinañ dem ci Cheikh Mahi Niass dinañ dem ci Khalifa Ndao Léona Niassène dinañ dem ci bu kanaan bu Serigne Babacar Mbacké mu Cameroun même dans l'église dina fa dem sàkku ñaan pour que ñu ñaanal ñu donc loolu yëpp bokkum suñu gouvernement inchallah am nañ ci yaakaar que on aura des résultats pal palpables clairs et nets merci beaucoup jërëjëf ndax beneen do wabaay mu wër lancé beneen ci waa Kaolack kay ñoo ay non bàyyi ba waa Thiès la bu waa Thiès la ak waa dinañ ko bàyyi moo wax xam mom moom dinañ la topp bu baax a baax ni eh, nga xam ne sa mandat bi nan nga koy tenir par rapport man moom sama localité moom moom boo ko laalut moom sa kaw bu baax a baax mm-hmm. xam naa ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ni nga xam moy mooy euh, téléspectateurs yi la doon sétan waaw bon président xale gaa yee ko wax ne man waxuma ko. je pense dama dama falo sax ñun photo boobu photo boobu lañ publier président mais xam nga c'était pas affaire yooyu hein? noonu. c'est normal parce que xale suñu président de la République. xale la ma ci donc aussi. très bien <laughs> donc ñun dal lenn la am lu may wax moy étudiant bu ñu ci ça c'est un. parce que urek amul xaliss bu nekk sur place à travers des démarches lañ mëna def.

liggéey bi du man kase du Cheikh Mahi Niass moo koy def wala du sama équipe coalition même les candidats yi nga xam ne ñoom laa gagné sax prévoir naa pour liggéey ak pour liggéey ak ñoom donc képp koo xam ne woo nañ ne pour nga bokk ci bureau bi te am nga suñu temps ñu ngi lay ñaan nga ñëw fekk suñu te ñu te ngeen xam ne leen rek moo ñor mooy étudiant Kaolack fan lañ leen di fekk si ak nan la ñuy def ba euh, ñu ñëw ci yéen tamit mm-hmm. parce que am na ñoo peut être ñoo lay seetaan ñoo ngi dëkk Kaolack wara a euh, di jàngee université Cheikh Anta Diop am ay problème euh, nan la ñuy def te xamuñ leen parce que bu ñu waxee UREC am na ñu bëri xamuñ li nga xam loo xam ne mooy nan la ñuy def pour waaw pour le moment man sama numéro damay faral di ko di ko joxe carrément parce que c'est un peu confidentiel mais UREC UREC va mettre à la à la disposition des étudiants Kaolack deux numéros vers yoo xam ci les prêts pour travail man man su ma sax président bi ñëwaat sax ci numéro ci lay continuer pour pour travail naam parce que pour yéen ñi nga xam ma soxla chaque mm. jour mangi devant devant du pavillon parce que chambre 40 dee laa dëkk fa laay chaque jour fala laay fa donc du ma ñibbi dañu ñëwee foofu noonu ma fekk on va essayer de trouver des solutions inshallah dans les plus rapide euh, dans les plus rapides dans le plus rapidement possible inshallah dal mais dal ñen ñaanal ñu te ngeen topp ñu bu baax a baax a baax am nañ yaakaar que ni amical bi dina changer ci suñu parce que suñu ambition du amical bi le ëllëg bëgg nañ nekk dara Kaolack donc fii lay commencé étudiants yi ñu jiite tey su ñeen wala lu leer ëllëg suñu soxlaa dara ci biir Kaolack donc xam nañu dina métti ñun mhm. donc moo tax ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax incha allah mhm. xam naa euh, boo toogee bu baax a baax léegi mu jël appartement Seydina ñu bàyyi la nga tàgg toog li may dee appartement bi li <laughs> may dee appartement bi man nee naa la man nee naa la man sama qualification pédagogique sax dëkk moo te chaque day damay am lii te ñu fanaan. am nañ sa numéro xam nañ la dinañ la topp kaw la léegi bàyyi euh, Cheikh Malick sama sëriñ aussi di la féliciter encore une fois. bi. Euh, di di si am que c'est un plaisir parfois problème euh, le problème des étudiants de